asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu si Wassare Lamb Wassare TV tey nag ah, wax dëgg yàlla nee naa leen Wassare à chaque fois lépp loo leen bëgg rek da koy def tey nag ah, ñu am gan goo xamante ni wax dëgg yàlla gan bu spécial gan boo xamante ni dafa nekk ci làmb mën nañoo wax ni sax génnul sax làmb parce que làmb la mu nekk koo xamante ni ñëpp xam nañ ne. Euh, dafa nekkoon ci li nga xam duñ ne sax ay jafe-jafe mais ay tolof tolof dal ko mu nekk mbër boo xamante ni géejawaay doone Balla Gaye de doone Lac de Guiers sa mu amoon na fi guddi bu nekk am fi tàkkusaan bu nekk tey nag ah, wax dëgg yàlla ñu am contentement bu baax a baax a baax fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy làmb euh, sa Kajoor maa ngi lay nuyu. Fatima maa lay fay. di nuyu waa wasaare lamb yëpp di nuyu monde entier di nuyu sénégalais waa avant tout sax may ñaan mbas bi am ci dëkk bi yàlla na ko suñu borom saafara waaw yaakaar naa moom lumbe àdduna bi yëpp maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla saafara. waaw wallaay tubé quoi. mbër nuyoo bi am na solo nuyoo bi am na solo ah mbër ah, wax dëgg yàlla tey kenn du fi nekk naan kan mooy Saaka Joor. kan mooy Saaka ndax Saaka Joor nekkul mbër boo xamante ni dañ koy présenté mbar tey Espagne mais ñu bari li ñuy laaj que ni ah, Saaka fi mu nekk lan moo ko fa yóbbu ba pare ndax gisoon nañ la fi nga nekk ci Sénégal nga amoon tolof tolof yoo xamante ni amoon nga ko naam ah, ñu bari dañ doon wax làmb moom mooy yàq Saaka Joor mais tey instant bi yow fan nga nekk. wa Fatima maa lay nuyu di nuyu sama yaay yooyu maa ngi koy sax maa ngi koy nuyu bu baax quoi. di ko ñaanal mu mhm. mën ren yàlla na ko mën bu déwénee. Ah parce que yow yaakaar naa ne ñi ma mujjee defoon mhm. interview mooy jóge foofu yow la quoi yow laa mujjee waxtaanal sax quoi. dëgg la mais actuellement maa ngi nii France quoi maa ngi France. Mhm. mais maa ngi sant yàlla bu baax léegi maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. Sa Cadior avant ngay dem France ñu gis ni. da nga tawtoon mais bala ñuy ñëw ba loolu Sa Cadior ban combat nga mujjee bëre. waaw maa ngi mujjee bëre général Papis laa mujjee bëreel. Mm-hmm. waaw sama mm-hmm. combat mujjee am la ko wax. Mm-hmm. Euh, ñaata victoire nga am. man maa ci seize victoire ak cinq défaites. ok dugg ci làmb ba na ne. Euh, maa ngi dugg 2004. waaw. Ah. ok. Mm. nga mujjee bëri papi général. papi général laa mujjee mhm. bëri euh, mhm. mhm. ñu gis ni yow avant ngay bëri papi général si nga tawatoon wala da nga bëri papi général après soo ko tawat. waaw tawat bi moom après papi général sax la ma la ma la mais avant papi sax man tawat man mu ngi sama yaram quoi. mais bi ma bëree Papis Général ba pare man ci la feebar bi attaqué noonu quoi. Mhm. donc voilà. Mhm. waaw noonu bi nan la la attaqué sa tànk moo doon nan la la attaqué. waaw yow xam nga lépp parce que waxtaan <laughs> na ci quoi. affaire mhm. tànk yu néew yi daal la ma dikkee woon quoi. ay yi ak yaram yu néew yi xam nga. affaire bi affaire de musique la woon quoi mais dafa dem ba si biir xam nga mbër rek lu ko dal moom mu feeg reen yi ma doon jël noonu xam nga ba kalaat sama reen yi xam nga ma am problème mu reen yi mais instant bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax baax a baax. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. yow ba nga bëreeg papi général ngay xam nga xam ne carrément man dañ maa attendre mystiquement yow ba nga bëreeg papi général nga soo xam ne dañ laa attendre mystiquement. non même avant ma bëre moom sax loolu mu woon ci maanaam dafa baax di wax rek maa ngi dégg muy wax di. di wax wax yoo xam ne amul bopp amul genn mm-hmm. mais loolu du ma du ma ko sax tontu xelam la waxee rek quoi. Mm-hmm. mais moom bu yaakaaree ni moom moo ma def lii moom mu ngi nax boppam quoi. te bu jàppee ne bu fekkee ne moom dafa yaakaar ni moo ma def lii moom mu ngi nax mm-hmm. yàlla suñu borom la rek. feebar bu ma dal xam nga su waree deñ rek day deñ te sant yàlla bu baax léegi-léegi waaye. mbër yaa ngi sant yàlla dëgg la mais tamit euh, yow sa feebar. demoon nañ ba benn instant gis ni wax dëgg yàlla saa kajoor sonnoon nga macha allah ñu bari ne mystique la ñu gis ne même papi général euh, interview bu ñu mujjee def ak ak moom yaa ngi ko dégg mu ne dafa dem ba benn instant sax euh, woo ngeen ko Balla Gaye woo na ko jox ko xaalis mais loolu réellement euh, mën nga see ñëwaat affaire boobu après nan nga demee ba sa xel xam ne carrément lii papi général man moomu ko def ak nan ngeen def ba jël numéro téléphone ba toog waxtaan ak moom. waaw non maa ngi nuyu Balla Gaye maa ngi koy bu baax. moom sax ah. moo ma poussé si loolu. moom topp na ma si yoon. waaw na ma si ay yoon papis. Mhm. nii papis naa xam nga. ma ne ko affaire yi du papis lii mburu yàlla la. mu ne ma non bàyyil ma woo papis sama gàlle ma woo ñu daje fa ñu waxtaan. Mhm. parce que xam naa ko quoi. Mhm. moom si la mu woo papis papis bi muy ñëw foofu maa ngi ko ak ak euh, maam Balla juróom maam Balla sa man moom ak Balla Gaye kese la woon. bi ma gisee daa naroon daw. Uh-huh. bi mu ubbee gis ma dafa naroon daw. Balla Gaye ne ko mbër kaay kenn def dara. billahi wallahi mu ne Balla Gaye yow yaa ar sama sécurité fii lu ma fi luñ ma fi def rek yow la quoi après man maa ne ko mbër fii kenn def la fi dara kaay toog ñu uh-huh. waxtaan. Uh-huh. loolu la demee. mooy. barki Rasulaay. noonu la demee am fu mu waxee Balla Gaye Balla Gaye yëkkati xaalisam jox ko. terewul man après maa ngi doon dund ak moom loolu di yëkkati sama xaalis di ko jox mais après dama dem ma xam ne kii dóorkat la quoi day door comme dóor bi ci nan. bi ñuy dóor xam nga di lekk suñu weccit yoo xamante ne mais ñun moom garaawul quoi ñun moom. problème mu xaalis loolu suñ problème. mais mhm. moo ñu ko woon benn ngaaga xam nga yaakaar ne ñuy dóor. te mhm. na ñu xam nga ñun loolu la ñuy dundee ñun lu ñu waaye gën a bëgg rek ñu ñu ñu jox ko ñun loolu lañ kon papi général indi na la ay garab yow ba nga ba mu garab yi est-ce que euh, seetlu nga kii tan après kii nga am nga tan non jot na mu jox ay garab mais laalu ma ko sax jot na mu jox ay saafara mais laalu ma ko sax. ndax laaloo ko. non laalu ma ko parce que moom li mu jàpp ak man li ma jàpp nekkul benn te sama toog ak moom sax Balla Gaye moo ko waral Balla Gaye moo ma imposé loolu ba ma nangu loolu. Mm. ñu toog Balla Gaye def affaire bu naaj yëkkati xaalis yu bëri jox ko sa hmm. waaye di takaay ci moonim bi xam nga di ñu hmm. taxel di jo non man tam du ma ngaaga ok dil bi mooy que ni dafa am après leen loo xam te ne da cee laxasu waaw dóorkat la rek hmm. dóorkat la rek waaw gis na ne gars yi sonn nañ war na leen mun a tànk si ruq xam nga lekk seen wecci moom loolu la bëggoon dund te temps yi boo gisee muy dawal noonu instant bi dafa dëgër le man xam naa am na ñu bëgg a tànk si côté mystique xam nga yaa am gën a xam di lakk seen moonin hmm. non non non non dóorkat rek du dara hmm. kon daal yow jàpp nga ni feebar bi la feebar bi la dal papi général li foog ne moom yow la dala koo teg tegula ko non moom teguma ko de li yàlla suñ hmm. borom moom ko teg billahi wallahi taala teguma ko de maa ngi ko dégg muy takk rajo yi di wax amul bopp amul genn xam nga moom li ko doomu jalaaw wax rek moo ci nekk quoi moom dafa mooy loolu quoi Hmm. mooy loolu quoi dafa normalul quoi. parce que normalul c'est moom moom li muy wax noonu mystique bu fekkoon loolu dëgg la. Hmm. moom normalement daf ma waroon jàpp yanu ma ba ci kaw dóor suuf wala mu jàpp ma daan man hmm. man bi may daan maa ko lu luppe tekkaat abi man bi may teg kaat abi moom gisu jegewu ma sax boobu mu ngi fee di teg naa kaat abi ba jóg moom muy doog a xam ne teg naa kaat abi loolu moom mystique am mais mais mbër mystique bi kii ne parce que moom nee na carrément waxoon nañ ko ah, saa kajoor dootul bëreeti nee na loolu wax nañ ko ko. no loolu moom wax na ko sax moom wax na ko Balla Gaye loolu. ah ok wax na ko Balla loolu. wax na ko de. Mm-hmm. mais mën dafa seetlu ñu wax ko loolu. mais li nekkul doomu aadama moo ma ko def man nangu mu loolu. Mm-hmm. suñu borom moo ma ko teg man nangu ko. te maa ngi sant mm-hmm. yàlla baax baax. ooy Papis tey ma tegoon nga teg bul la nee ku feebar da nga naan Papis mi moo feebar lu leer laa lay wax. naay mm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi France euh, sa Kajoor lu muy def foofu mi ngi mi ngi liggéey foofu wala day faju foofu euh, lan ngay def foofu. Fatima <laughs> bul tax gars yi koj ma maa ngi faju. <laughs> ah da de sa Kajoor di liggéey de. <laughs> saa oh, ah. Kajoor mu ngi sant yàlla bu baax. di ñaan Sénégalais yëpp ñu doole ma ñaan. waaw parce que seen ñaan rek moo fi bàyyi ba tey bi ma feebaree nii. ku ne façon ñaan bu ne jot naa ko billahi wala moo tax man amu seen fay. amu seen fay barki alxuraan karim. mais lépp luñ ma ñaanal rek yàlla nañ ko bokk. allahumma amiin. Sa Kajoor da Fatima. mu ngi mu ngi faj <laughs> nekk ci yaramam quoi wax dëgg yàlla. ok. wax dëgg yàlla maa ngi sama yaram ba tey ah. mhm. beneen bi mooy dañuy déglu say kàddu nga ne mhm. tey ñi nga xamante ne ñoo la gënoon jege wala ñi nga xamante ni peut-être. Mhm. ñoom tette nga leen wala Sakka Dior jàngal nañ la bëre. dañ am déception. waaw à chaque fois dañuy dégg kàddu boobu noonu. Sakka Dior dafa am nu mu dund ak mbër mbër war ko wala nu mu demee noonu parce que gis nañ ni affaire boobu noonu ci xoolu Sa Kajoor la nekk lu waral loolu discours boobu noonu dañuy dégg koy wax. non vraiment bul yaay fitna parce que affaire mbër yi moom fi mu toll nii man nekkatuma ci yooyu quoi. Mm-hmm. maa ci yeneen bagage yu mm-hmm. bokkul affaire mbër yi xam mbër moom maa leen di ñaanal mbër yëpp suñu borom eggali seen carrière jàmm asalaam mais man moom maa mm-hmm. ci beneen dimension bu bokkul ay dimension mbër quoi. mais mbër mm, mbër xam nga tey Saka Dior. mbër nga dañuy waxtaan. Mm-hmm. dañuy ne mbër nga. ndax mm-hmm. loolu lañ jàpp ba léegi gars yi jàpp nañ Saka Dior mbër la. Mm-hmm. dinañ si ñëw Saka Dior bàyyi na wala bàyyiwul après dinañ si ñëw mais Saka Dior. dana am déception ci ay mbër waaw wala déet. non déception waaw am naa déception mais. <laughs> loolu ci àdduna lañ ko fekk. ok. lool ci àdduna lañ koy fekk àdduna xam nga nit ku ne ci li ngay yëngu ci lu bari ci la lay tamit. dëgg la noonu la demee quoi. moo tax loolu du kaa quoi loolu nekkul sax lu ñuy waxtaanee ak yooyu noonu pour man yow mii ci li ngay liggéey ci ngay am ay déception ñëpp quoi. Mm-hmm. noonu la demee quoi. Mm-hmm. Eh, mais sant Mm, instant bi moom macha allah day ñaan yàlla mu yokk maa ngi lay tooñ naa la mbër moom léegi moom macha allah <laughs> day ñaan waaw day ñaan yàlla mu yokk saa kajoor day bàyyi de day continuer saa kajoor saa man gaa li ma waxoon gaa rek man mënuma bàyyi làmb parce que man sama carrière yëpp si làmb laa ko def mais mun naa mm. ñëwaat ci làmb ak beneen façon bu bokkul ak ni mu si nekkee woon. yëpp ok mais pas pour moo xam parce que. man ba may dugg si bëre xaw ma yàlla moo moo ma ci xiroon rek te yàlla mooy mhm. dogal dama mhm. continuer wala carrière bi fi lay yem mais man làmb sama mhm. xol la nekk loolu moom suñu borom moo ko def te sama waajur bu góor ku ko xam xam ni mel si làmb tey moo ma gënoon sax yokk bàyyi si làmb parce que doon naa si làmb foo xamante ne bàyyi woon làmb moo ma gënal mais sama waajur bu góor ni mel si làmb man loolu moo ma bàyyi woon si làmb Saaka Joor noo gisee làmb instant bi. waaw làmb mm. làmb Fatima li ma wax rek ci tànku dellu ginnaaw dëgg la nekk parce que làmb ñi si nekk. ñi si nekk mm. dundaluñ ko quoi dañ koy dundee. te lu ci loolu nekk dañ koy dundee dundaluñ ko nañ waxante li fi nekk. CNG bi. Mm. ko changé wul làmb mënul dem fi mu taxaw rek lay taxaw wala mu arrière. lu leer laa la wax. mooy CNG bi dañuy naxaate rek ñoom dañu war a respecter mbër yi mm. fonk mbër parce que lamb buñ koy wax mbër moo tax mm. bu dul mbër du amateur mm. du promoteur mbër moo tax ñuy wax lamb moo tax dañu war a respecter mbër yi waa CNG moom lu ñu nekkee foofu mooy xaalis mbër yi rek lañ soxla mbër bu feebaree lijjanti wuñ la bo lu la mënti dal ñoom seen ñu nekkul ci yow mm-hmm. ñoom sa xaalis lañ soxla buñ mënul am sa xaalis amuñu sew njëriñ loolu nag du àdduna loolu du àdduna quoi waaw kon saaka yor su ma déggee yow sa feebar waa CNG participé nañ ci ndax gis nañ a ah, Sarr ñu koy nuyuwaale au passage am na benn cabinet boo xamante ni macha allah day dimbali mbëri kon yow euh, sa feebar santiro ci sa bopp que ni yi jàppale nañ la wa axlu làmb non waa axlu làmb moom ñëpp jàppale nañ ma mais waa CNG moom waa CNG moom non ñoom ñoom moom hmm. mooy loolu Alioune Sarr. Mm-hmm. Alioune maa ngi dégg fan yi am na benn mbër doon xaw ma mooy mbëru Pikine bi mbëru Pikine boobu tànn. Jules Balde Jules Balde Junior Jules ak yooyu yëpp rek. Mm-hmm. lépp na deux cent mille te lool du yoon. loolu du yoon mm-hmm. Alioune Sarr Jules Balde boobu ci ci gerte gi la bokk. boo nga ko munul yëkk sa xaalis nga jox ko mais nga fekk ko gratuite moo yoon mais loolu nag war na wane ne ñun Alioune Sarr mii daf ñu guddeel nag billaahi daf ñu guddeel nag mooy mhm. kon da nga d'accord si ñu ne na dem non dafa war a dem dañ ko war a yëkkati barki yàlla nit mu xamul suuraan dañuy téye loxom mais Alioune Sarr moomul nit ñi moomul nit ñi ak <laughs> Serigne Touba Mbacke tagal gaay nii yomb torop kenn xamul xaw mm. ma walaay dafa a jóg nit am na yoo xamante ne sax bu fekkee am nga ay mbok wala nga am ay doom wala nga am ay jarbaat sax am na yoo xam yaa ko war a bañ parce que ñëpp buñ mm. taxawee ne na jóg yow war nga xool ci say doom wala say mbokk sax yow nga jóg mm. nga toog fi nga toog rek ñaata at yow boobu sax ñun ñu ngi jàng raam xawma ba tey moo fi nekk amul fenn amul fenn barki yàlla daal yow instant bi tey bu fi Alioune Sarr jugee Sa Cadior est que tey am na ñu gis. ndax euh, yaa ngi dégg naan ay mbër mais yow est que est que Sa Cadior mbër mën naa yor CNG. non mbër moom ragal naa mënul yor CNG quoi nañu wax li fi nekk rek mbër moom. Hmm. moom mbër moom mënul yor CNG quoi. mais maa ngi dégg ñu doon wax gaayan boobu nu tudd sax. Euh, damay fàtte tur bi sax. ok gaayaanu gaayaanu Mali ñaa doon waxal noonu nu tudd sax. Kéba Kanté. Kéba Kanté yaa Kéba Kanté waaw mais mais pourquoi moom mënul yor CNG bi war na ko mun gérer. ok Alioune Sarr gënu mhm. jàng ñu fi nekk. jàng affaire yi da ngay def loo nga mën foofu fi nga yem nga nga taxaw kenn ñëw mhm. eggali mais nit mënul def lépp loolu yàlla may ko kenn. Mhm. loolu yàlla may ko kenn da ngay def fi nga yem nga taxaw kenn ñëw eggali kooku tamit day yem fu mu yem kenn ñëw eggali. mais yi ñuy def ni affaire naxante mm. la di lekk xaalisu gars yi ci Alioune Sarr ñoom bu ñu sañoon chaque jour lambu day toj parce que combat Alioune Seye de ñàkk jaru gis nga nu mu demee ñu téye seen reliquant mm. reliquant mbër loolu ak boobu rek bu la dalee yow doo ko fekkee mbër boo xam ba ngay naa ngi mm. nelaw mu ngi dem géej entraîné quatre heures du matin cinq trois heures yaakaar préparé cinq mois six mois ñëw combat bi toj nga téye reliquant ba pare aj ko dafa ñaaw trop Mm-hmm. billaahi dafa ñaaw loolu. Mm-hmm. loolu kenn waru koon loolu àq dëgg la àq boobu baaxul. parce que yàlla sama yaram mm-hmm. dafa daw sax ci loolu. beneen bi mooy ñu bari ne làmb mbër VIP yi ñoo ko xaw a yàq ndax seen cachet lañu mënul wàññi yow lan loolu lan nga ko déggee que ni euh, mbër VIP yi ñoom ñooy bëri seen kaw ku ci ni Balla Gaye Modou Lo Lac de Guiers Bombardier Eumeu Sène ñooñ kese ñoom ñooy bëri seen biir loolu nan nga ko déggee. non lool du ci mbëri loolu problème mu amateur yi la ak problème mu promoteur yi parce que promoteur yi tamit léegi ñoom dañuy business la promoteur yi léegi dañuy business. Mhm. waaw dañuy dugal seen xaalis pour mhm. gagner ñoom fu ñu yaakaar buñ ko fa dugalee mhm. gagner foofu lañ koy dugal loolu tamit kenn du leen ci balaame quoi waaw loolu dama naan. nga mbëri góorgóorlu rek jéem a aju rek comme gars ñoom seen xaalis lañ yor di business. ñoom nañ yor seen doole rek. pour mm. pour business ñoom tamit. noonu laa ko gisee rek mm. ah. oui mais Balla Gaye maa ngi koy bu baax maa ngi borom tamit suturaal ko bu baax moom vraiment nit ku baax la lu ma tayal moo ko di ko wax. mooy ku métti trop farima yow. boku nga si ñu mu mujjee waxal bi may jóge foofu. yow laa mujjee defal interview ñu waxtaan mu métti mm. woon trop. mais benn Balla Gaye moo taal otoom di ñëw sama gaale guddi moo may woo téléphone bu ko defuloon tamit du ma ko wax. dëgg la du ma te gisuma ko billaah mm. daf ko def moo tax mm. moo xam na mm. ma bu baax man du ma nekk di sànni fleur kenn mais lu mu def rek laa ko waxal barki alxuraan. mais mm-hmm. maa koy ñaanal bu baax suñ borom suturaal ko quoi. Mm-hmm. part Balla Gaye euh, am na mbër yoo xamante ni bokk nga ak ñoom écurie. à part Balla Gaye mm-hmm. guy gi ala à part Balla mm. Gaye waa Alioune Seye de maa ngi koy nuyu sama doom yaay boobu ay les de mm. Lirou Diane mm. waaw ñooñu moom wax dëgg yàlla sol nañ seen ndaw guy sama gaan la sama waay la kóllëre bi ñu yàlla boole woon mu rafetoon ba man loolu laay xool même buñ gisewul kóllëre bo man maa ngi koy sàmm ba tey ok barke alxuraan parce que bu doon benn fan sax dund nañ ko si lu xëy na waaw nit mooy juum man noonu laa jàppee rek dafa juum Mm-hmm. mun naa mu bañ ne daa juum wala mu nangu ne daa juum mu continué amul problème ah, mooy loolu. yéen a ngi déggante ñaar. non gën nañ déggante moom wax mm-hmm. mais Saka Dior. Mm-hmm. ñu bari li ñuy wax que ni ñoom mënuñu concevoir guy gi bañ na ko dañ ne Saka Dior mooy sama idole mooy sama mag mooy sama lépp ci keppaaram laa jàngee loolu chaque jour daf koy wax ñu gis ni yéen ñaar seen relation rafetoon macha allah seen relation yéen ñaar lan moo ko yàq fu mu jugee quoi fu parce que gars yu bari dañu ci interpellé que ni Sakka ak guy gi seen relation lan moo ko yàq est-ce que Sakka Dior moom waroon naa seetaan relation ak Gouye gi di yàqu est-ce que Sakka Dior waroon naa seetaan loolu. <laughs> Farima. Mhm. non man su ma sañoon duñ dugg sa si xam nga. instant bi dañuy waxtaan ndax ñëpp xam nañ ni carrément doo waxantu. Mhm. te am na loo xam te dafa dañoo bëgg mu leer. yow yaa ngi France. Mm. tamit ne nga fi mm. Balla Gaye de da lay jàppale amaana bu bu ko defoon du ko wax. ay Alioune Seye de suite ainsi de suite. mais sa diggante ak guy gi lan moo koy yàq yéen ñaar lu waral loolu kan moo leen jaxase yéen ñaar. guy gi dama jàpp ne nit ñi nit ñi rek tamit mun na nekk tamit nit ñi ñëw fii di wax fee xam nga. Mm. mun naa jàpp ne tamit. mais ba tey man munu ma la wax lii lañ jote te moom tamit yaakaar su ma juumul ma ah man bokk man bokk mënu ma la wax lii la jote barki Seydina mm. Muhammad ak sama baxalu doom billaahi wallahi taalaay ak yàlla bu ma gisaa samay doom man mënu ma la wax guy gi lii laa joteeg moom mënu ma xawma ko moom daal moo jekki-jekki téye boppam comme noonu mm. Mm. ah moom moom boppam mu téye boppam ah. man moom wax ki alxuraan man benn façon ni ma mel li ma ko hmm. jàppoon ak bët bi ma ko doon xool ba tey war na rusulaay moom laa koy xool nee naa su ma ko lu ñaw man yàlla naa si jiitu man ak sama njaboot barki alxuraan billaahi wallaahi taala bis bu man ma mësee toog yéene ko lu ñaaw jour boobu yàlla na këpp sama kaw man billaahi wallaahi xaw hmm. ma problème yooyu man hmm. xaw ma sax mais tey porteur de voix nga te ku la xam guy gi la la xamee tey boo amoon conseil boo ko jox wala loo wax lan wax. lan laa koy mhm. foofu nag quoi. non mbër tàncu ma parce que. man instant bi dama koy ñaanal rek carrière am dama koy mhm. ñaanal rek carrière egg si jàmm lépp lu mbëri am ci làmb yàlla yàlla na ko ko am moom loolu laa koy ñaanal quoi. daa mhm. koy egg si jàmm li ko taxoon dugg ci làmb lépp suñu borom eggalil ko wax parce que tamit nit ku baax la moom mm. wax dëgg yàlla tamit mm. man xaw ma nu mu demee ak problème yi yooyu yëpp xëy na succès tamit mooy loolu parce que du ñëpp a atteindre succès tamit parce que man tooloon naa foo xamante ne façon nit bu nekk laay gis mm. façon wax bu ne dugal nañ ko sama nopp ku ne bàyyi ñii soo bàyyiwul ñii doo dem bàyyil fi ngay fréquenté soo bàyyiwul fi ngay fréquenté doo dem xam nga lu ne dégg naa ko jëlal la appartement nga dem nga bàyyi fi lu la dégg naa ko hmm. nit mënu ma hmm. jëlee fi ma nekk man këf du ma yóbbu quoi hmm. këf yóbbuwuma quoi oui këf yóbbuwuma lu ne dégg lan ngay conseiller xale yi nga xamante waaw waaw acca bisimilah waaw man lan ngay con conseiller xale yi nga xamante ne instant bi dañ ci toll parce que yaa ngi koy wax ne di nga toll mois boo xamante ni da ngay gis lu ne da ngay dégg lu ne ñu gis ne am na ñoo xamante ne say rakk lañ ñu ngi ci làmb instant bi am fuñ toll mais ban conseil nga leen di jox. waa booy booy ñoom sax dañu am sens ñoom liñ tombanteel ñun ñun ñoom buñ ko amoon. Mhm. maanaam ñun jafe-jafe yu bëri sax yàlla mën na dogal kon duñ ci jaar parce que léegi lépp yomb na gis nga léegi lépp yomb na problème yi jiitu na seen kanam ñoom gis nañ li fi jaar yëpp lu ma leen wax mooy làmb du métier. bu njëkk mooy nañ ko booleeg métier. Mhm. moo njëkk laamu du métier. Mhm. nañ ko boole ak métier. Mhm. mbër du mbër looy wone mbër jikko la. dëgg la mbedd di mbër ubbeeku yooyu amul solo. mbër jikko la boo xamante comme yëre la booy sol dafa am foo koy solee ak foo koy sumee. loolu ñu respecté nit ñi. parce que mbër noobul la mbër ku mu gënul gënoo ko. mais tey ñu bëri boo waxee ñoom mbëri ay dof lañ wala mbëri ay ngomam baat boobu daf ma metti daf ma metti mm-hmm. pourtant mbër yu baax yi fi baax yëpp mbër yaa ko yor. dëgg la fi ko yor. dëgg la dara lu ci baax si dëkk bi te mbër yoruñu ko. dëgg la mbër nag moo war a njëkk a respecté boppam. Mm. bañ a turu mbër boobu mbër noobul la. Mm-hmm. waaw maa ngi conseillé booy nañ ci boole métier xam nga respecté seen waajur yi. Mm-hmm. seen waa yooyu mm-hmm. yëpp dama ci jaar respecté seen waaxuñ yi respecté ñëpp mu nit moom boo mm-hmm. bëggee ñu respecté la da ngay sa bopp ba pare mm-hmm. waaw noonu la demee quoi mais nan nga gisee instant bi booy est-ce que Saka joor am na ci ñu muy gis boppam ndax gis nañu révélation bi ak booy nan nga leen gisee ak yan booy instant bi Saka Dior gis na leen bu ñu defee kii rek incha allah dañuy yéeg waaw booy maa ngi jokkoo ñoom lu bari booy dañ may fi fii barke alxuraan dañ may lu bëri ay buusita ay mm. njambaan ay safara mbay joob yooyu yëpp ay mm. pambay pambaay mm. mbaytin ama seen junior ñoom ñëpp wa ah, dañ may woo fii dañ may woo fii lu bëri ndeysaan ay booy am talent lañ mais maa suñu borom xam nga sama benn rakk bu ñuy wax Mor Saga Diop moom sama rakk la ko wax sama rakk la ko wax mais maa leen di ñaanal suñu borom li ñuy mbëba ci laam yëpp suñu borom eggali ko maa leen koy ñaanal bu baax a baax a baax laam dafa waaw mhm. mbër yu mag yi moom. ku ci waaw. seen bëri quoi. seen lamb Balla gay mhm. Eumeu Sène seen i qualité quoi. Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène. ñoom seen qualité non ah, loolu boobu moom Farima coow fi nekk rek mais mënante wuñ dañuy jekkonte rek. dañuy jekkonte rek mbër yi moom. ok mënante mënante wuñ quoi dañuy jekkonte rek. Mhm. mais nag yàlla day maye. yàlla moom day maye mais mënante wuñ. parce que boo xoolee diggante Modou Lo Balla Gaye Eumeu da ngay gis Hmm. mënante amul foofu quoi dañuy jàppante rek. waaw moo tax nay rafet nag waaw après yooyu yëpp day passé moo tax day naaj kon Balla Gaye dama koy suivre lu bëri damay damay kii quoi parce que gisul gisul boppam ci li mu nekk quoi. dëgg la. ci boppam quoi loolu neex na dëgg dëgg dëgg la barki Dembo Ndiaye sax gis nga lu rafet hmm. li mu def Waly hmm. Seck ak ki nga xamante ne moom mooy Pape Diouf. lu rafet li def réconcilier leen xam nga mu mm-hmm. nekk loo xamante ne àdduna ñëpp ñu ngi mm-hmm. koy rafetlu mu mm-hmm. nekk koo xamante ne boo waxee mu ne la àdduna amul solo moom loolooy waxam ci baax barke alxuraan loolu mooy waxam de moom àdduna amul solo rek lay wax billahi àdduna amul solo lool amul dañuy déggante affaire yu bëri mais loolu lay wax rek loo wax mu ne àdduna amul solo billahi te effectivement wax na dëgg àdduna amul solo man ku ah. xool si man rek ay cinq ans six ans si ginnaaw rek ak tey nii saaka yor man su ma la nee àdduna amul solo wax nga la. bilaay mais maa sant yàlla bu baax léegi nag. maa ngi sant bu baax. waaw di ñaan mu doole ma. waaw kay. mooy na yokk mbër. mais gis nga problème arbitre ak waa CNG. waaw gis naa ko gis naa ko wax rek hmm? mooy li ma lay wax ci CNG bi hmm. ne bëgguñu mu mu feeñ. Mm. am na lu fa nekk loo xam ne secret la ci ñoom ku nar a mm. génn ñu ñu ñu dàq la Yékini jaar na fa <laughs> Yékini jaar na fa am na lu mu gis loo xam ne mënul continuer mu teel a taxaw mm. non dañuy naxante te ñoom dañuy naxante te loolu mm-hmm. lu toll ne làmb suñu suñu loo xamante ne ñun mooy suñu suñu naan la koy waxee sax ñun mooy mooy suñu lépp ñun Sénégal suñu sport waaw mooy suñu cosaan quoi. Mhm. loolu nga xamante ne mhm. moom. mais ñi ko gérer ñooy naxante dañ koy dundee du dundaluñ ko mhm. loolu du yoon. du yoon làmb teraanga la gis nga nit si jaruñu ñi jaay ndox ñi jaay gerte ñi jaay mburu ñi lu ne dañuy jaruñu si làmb dañu war a fonk làmb mais seen bi moom ñoom dañuy dañuy saboté làmb billahi dañuy saboté gis nga mbër yi léegi mbër yëpp a ngi tukki di toog du yoon bu yàggee làmb day waaye di hmm. mbër yëpp a kut kukki doo ñëwaat parce que dafa yomb gars yi da ngay rey hmm. sa boobu ba sonn yuy lekk sa xaalis ci zéro ba pare di la hmm. jaay affaire yoo xamante ne teguñu ko fenn du yoon même buñ ci booleel wax bu neex sax nga comprendre mais dañ ci boole di la wax xam ne wax yu ñagas yoo xamante ne te boo waxee ñu ne waroo wax yoon mais man li ma waxoon laay wax rek man c'est que man waxuma si a heure bi man duma si wax dara luy déborder quoi mais mm. Alioune Sarr moom moom dafa war a joxe place bi mu mu toog quoi. Mm. noo gisee mystique ci làmb am na ñu bari ñoo xamante ni mystique moo gën a ñu bari nañ sax da nga dem benn instant mystique bi mooy dominer làmb mais yow peut-être mën nañu wax dund nga ko d'une part dundoo ko mais nan nga gisee mystique ci làmb. mystique mystique ak làmb nag ñoo ànd benn mënul dem bàyyi moroom boo si bàyyi rek mën na feeñ. Mm. mystique ak ak entraînement li mooy wax rek hmm. ñoo yem ci làmb bu ci manqué rek boo demee géew mun hmm. nga feeñ parce que loolu mosoo ma dal sama benn combat jarul sax muy tudd tur dama entraîné ba hmm. bajantu ba yëg sama bopp mais dama dem ba làmb ja di jeex di jeex rek billahi wallahi wallahi di jeex di wàññeeku jeex ba jeex tàkk am nay ay téere yu ma doon takk bi ma koy takk dañ si doon wis ndox pour ma takk ko mais ma demee ba ba esal ba oh. tout ba dernière minute téere yooyu daf ma mujjee ëpp di wàcc billahi wallahi taala lamb dafa yéeme de dafa lool. moo tax daal ku ci nekk te mënoo jóg sa bopp wala nga am yenn xol yi moom non teel ko bàyyi nga def leneen. Mm. moo gën parce que loo fi mm. nekk def nit rek nit da koy def lamb moom noonu la quoi. ok mm-hmm. am na looy regretter ci lamb. lu may regretter ci lamb. waaw bari na. Mm-hmm. am na waaw. comme lan comme lan. lu may regretter ci lamb mooy sama combat ak Alioune ak sama combat ak Douglas. Mhm. loolu laay regretté ci làmb quoi. li tax li tax loolu. waaw ah, parce que Alioune Seye sama seex la sama xarit la gis nga nuñ demee dañuy déggante léegi sànq rek moo si mujj barki alxuraan ma koy ma koy baal ma koy baalu àq bu baax Douglas tamit man moo ma yar ñi tax ma bëgg làmb si laa bokk dama doon dem këram nii di toog di def lu ne di lu ne ma dem ba làmb boole ma ak moom billaay wallaay <coughs> Fatima. ndeysaan loolu rek ngay ma torop ci làmb. lan moo la gën neex ci làmb. làmb waa lu ma gën a neex mooy. Mhm. man succès yóbbuwuma. man ni ma avant ma bëre ba tey man noonu laa mel ñi ma doon àndal. Mhm. avant bëre ba tey ñoom laay àndal. Mhm. waaw loolu moom macha allah neex na ma torop. loolu moom. succès yóbbuwuma musuma gis sam bopp ci affaire yi. macha loolu moom neex na ma torop Mm-hmm. oui. Sakho mm-hmm. kontaan nañ ci yow. maa gën a bëgg suñu mm-hmm. frère nga. suñu xarit nga. waaw ndax heure buñ la soxlaa rek. day yomb suñu wax dëgg yàlla yow suma dama laa wax rek nga ne ma amul benn problème. waaw di la remercier bu baax a baax di la ñaanalaat tan. yow ñoo far parce que la ma la bañal. ni mu feebaree ba sonn yow naa yow laa mujjee defal interview. dëgg waxtaan jour boobu yaa ngi wax ak man ba sa bëri temps loolu. dama marqué trop si yow. billaay wallaay. da nga dem ba mënatoo ma sax laaj li ma doon laaj. dëgg la daf ma trop trop. mais yàlla baax na kontaan naa trop. yow ñoo far. Mhm. ba pare ma tegal la ci. Mhm. ma tegal la ci ba yëgee ni sa feebar. journaliste mhm. bu njëkk sa kër. ci laa ci nekk te man maa la maa jël maa la mujjee jël. jour boobu maa ngi la fekk seen kër ci saal bi lañ ko defee. billaay wallaay Ah, moo tax nag mhm. am na yenn mm. yoo xamante ni ñun mm. xaw nañoo fekke duñu fekk nañ mais xaw nañoo fekke xaw nañoo gis dëgg la moo tax buñ la gisee nii mm. dañuy kontaan bu baax a baax a baax ndeysaan ndeysaan di la ñaanal xam nga yàlla may la gudd fan ak wér may la kattan amiin waaw yaa xam li nga bëgg na la ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad amiin yàlla nañ ko kontaan naa ci yow waaw yow suma frère nga suma xarit nga awal mhm. bu baax a baax a baax a aha di leen bëggee waat nag bu baax a baax ci yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Sa Cadior lañ leen indi loon di tax ñu indil leen ko xam naa ne namm ngeen ko te bëggoon ngeen a déglu ay kàddoom wax dëgg yàlla j'espère que ni wax dëgg yàlla mënuñoo waxtaan ak moom ci lépp parce que am na loo xamante ni sax waaw moom amul jot bi amul temps bi ndax dafa sacrifier lu bari rien que pour me faire plaisir waaw di ko remercier bu baax a baax moo tax bëgguñu koo téye ci antenne bi di ko remercier di ko ñaanal jàmm kon niñ ko waxee moom suma mag la suma xarit la naan ko kontaan nañ ci yow frère kontaan nañ yow bu baax a baax. Mhm. j'espère que nag vous avez aimé ah. ni lañ koy defee rek wasaare làmb dañuy toog suñu kër yi di waxtaan ak nga xam te mu ngeen bëgg a waxtaanal di ko bëggee bëggee waat bu baax a baax ki nga xam te ne moom mooy sama technicien sama cameraman muy Basirou Diouf séeréer bu nice naan la yow moom yal na la jàmm sonn yow buñ ne acca rek nga ne acca di bëggee waat ñëpp ñëpp ñëpp di wax gars yi nañu baal ak nañ leen baal naan leen mbër ak diine nag de continuer saa kajoor sax dañ ko koy jël mbërëg diine mais saa kajoor mbërëg diine bi yaa koy seetaan. waa suivre après boo ma jëlee ñu waxtaan si. mais yaa ngi seetaan mbërëg diine bi. maa koy seetaan maa koy seetaan. gis naa ah loo ci gis ah. mooy sama mbërëg yàq armée seetaan loolu. di ko ah, mais xam naa yow incha allah dañ la jël mbërëg diine ci kàttanu yàlla. yaa ngi waaw ñoo far ok jaajëf waay di ko béyewaat bu baax a baax. Basirou Diouf ok merci beaucoup Basirou Diouf sa antenne boobu jëlal def lu la saf Fatima kese.